bi nga xamee ne bii senegaal woote woon na fi ndaje juróom-ñaari at ci ginnaaw ay réewu africain yu ñëw fi pour xool naka lañu ñu mën a gën a góorgóorloo ci suñu secteur primaire yi ak yeneen secteur boobu la woon en 2016 wàllu énergie pour génne Afrique ci situation bi yàlla def également 2020 2021 2022 Il àddina bi yëpp kenn ku nekk am loo dund gannaaw bi ñu gisee covid bi ak guerre bi nga xam ne bi néega ni ba léegi mi ngi daw loolu nag ma waraloon président de la république ak président Bad ñu ne nañu organiser benn sommet fii ci Dakar pour xool naka la réewu Afrique yi benn kenn ku ci ne xool naka ngay mën a fexe ba yokk sa koom ci wàllu dund pour que événement yi ñu wax mu wax léegi nii bu delsiwaatee wala bu fi jógewut it ñun ñu xool naka lañ ci mën a fagaru ndax yàlla def na am nañ potentiel bi ndax am nañu suuf am nañu ndox am nañu jant donc loolu lépp buñ ko boole ak suñu xarante yi nga xam ni am nañ ko ci secteur yëpp danañ mën a produire li nga xam ne lii moom la ñuy lekk lu mat ñaar fukki njiiti réew joxe nañ seen accord ne danañ ñëw ak yeneen délégation yoo xam ni yeneen niveau ñoo leen di représenté àllarba alxames ak aljuma fii ci sikat ah réew bu nekk dana dana jàkkaarloog partenaires yi wax li ngay xaar ci ñoom pour ñu jàppale la pour nga sa secteur primaire mën a jëm ci kanam jàpp nañ ne ci juróomi at yi ñu jëw ci wàllu dund war nañ cee dugal diggante investissement exploitation lu mat juróomi junniy milliards juróomi junniy milliards nag yaakaar na ne peut-être bii mooy première fois Sénégal porté projet bu nu toll ci wàllu dund ak ay programme yoo xam ni leer na yoo xam ne danañ ko mën a natt at mu ne xool liñ ci def ci sommet bii nag bi nga xamee ne bii daanaka ñaari événement yi dafa tombe pour wàllu Sénégal dañ ciy jël lu mat junni ak juróom benn téeméeri milliard moom lañu ñu war a waxtaan ak BAD ak partenaires yi ñëw ci wàllu mbay ci wàllu càmm ak ci wàllu napp gi te am yaakaar te buñ génnee ci réunion bi danañ ci am ay jéego yu am solo yu def ci wàllu woowu